bi euh, député Benno adopté la dernière fois en bloquant l'arrivée du ministre am ñu jàpp ne euh, mën na nekk rek euh, motivation pour sax par président user de ses pouvoirs pour dissoudre cette assemblée bi nga xam ne volonté mooy mooy actuellement fonctionnement réew mi acte boobu ñu defoon oui yu c'est ridicule dafa mel ni yow tey xam nga yow toog en toute souveraineté nga invité pour sa émission mm-hmm. man may la cër ne soo ma invité damay mu ñëw ba fii nga ne ma doo dugg ci saal bi. <laughs> yaa tooñ sa bopp non yaa tooñ sa bopp. Mm-hmm. yow nga invité sa gan mu may la cër jiitu la yow nga ñëw en retard. nga fekk mm-hmm. mu toog nga ne ko maa la invité mais dara du am yow yaa ridiculiser sa bopp. Mm-hmm. yaa ridiculiser sa bopp donc c'était de l'enfantillage et c'est mauvais pour ñoom mais malheureusement boo seetee ñoom pendant les douze ans yëpp lan la ñu mënoon dañu doon mobiliser pour saaga nit xeex. di dugal ay gendarme pour ñu leen di jàppale pour organisation c'est hmm. la première fois dans le monde ma di seetaan télé di gis tout un régiment de gendarmes dugg ci biir assemblée pour se substituer à des députés pour xeex contre l'opposition c'est la hmm. première fois c'est ridicule donc ah. loolu la ñu tàmm et comme maintenant les choses ont changé le pouvoir est perdu de leur côté ils ont du mal à retrouver